dañoo jëm ci ay élections législatives président de la république am yaakaar ci ñun ñëpp yaakaar ji yëmut ci ñi mu def ci liste nationale yaakaar ji yëmut ci ñi mu def ci liste départementale ci mbooleem ñu koy jàppale ci ñoom la am yaakaar ndax kenn ci ñun ku nekk ci liste bi si jëmmi bopp mënut a gañeel président Macky ñun ñëpp ñooy maase ànd kenn ku nekk jàpp kenn ku nekk andi la nga man complété sa morom su boobaa victoire bi dana yomb te mi ngi suñu kanam. muñ ci loo xam ne moom lañuy ñuy nattable ne au soir du 31 juillet incha allah dana am majorité à l' assemblée nationale. mais mu am majorité te gañewul Touba gañewul Mbacké day am lu des moo tax nag ñi nga xam ne ñoo nekk fii dans le département mbaytin mi ngi sama ginnaaw pour le monde rural moo Mbacké bari nañ fi. waa Touba ñoo fi ëpp ñun ñëpp ñu maasee too nekk benn def bloc xam ne cette année ci chance bi ñu am pour gagner les élections mosuñu ko am. majorité assemblée nationale bu ko président amut day indi instabilité ci réew mi mu seq ko ak nit ñoo xam ne dañuy def li tubaab di wax subversion am ci ñoo xam ne respecté wuñ. les règles de la république am ci ñoo xam ne dañuy yee fitna ci réew mi am ci ñoo xam ne leen tax a jóg mooy bloqué doxinu réew mi loolu nag kenn ku nekk ñu dafa am responsabilité jóg faire face à cette opposition subversive pour jox président de la république li nga xam ne moo di majorité pour que réew mi am stabilité bi nga xam ne moom la war a am. parce qu'en face il y a ñi ñu ko seqal tasaaroo nañu warante nañ ki suñ ki seen biir ba genn wàll gépp dem nañu seen kenn ci jumbiwul ñi nga xam ne ñooy électorat bi tey amatuñ ci ñoom kóolute ndax amuñ lenn luñ leen teg amuñ lenn loo xamante ni moom leen di présenté comme bilan ndax bu ñu fàtte ne bu dee wàllu député ñun ñoo ne ci opposition fii ci dëkk bi ñoom cinq ans yi fi def ban bilan la ñuy présenté askan bi lu ñu leen waxoon bi nga xamante ni moom la ñu sàkku seen i baat te boobu te boobu waxoon nañ leen ko ne woon nañ leen ñii bu ñu demee assemblée dara leen mënoon xeex a xuloo dong lañ fa nekk ak wax ñëw ak saaga loolu nag foog naa ni Touba mérité wu ko jëfi président ci département bi def ko jar du ma dër ci toutes les réalisations yi nga xam ne def na ko bi ci mujj rek mooy nab bi nga xam ne moo jaaxaloon nit ñi boo demee li wër jumaa ji lépp ca armeel ya kenn ku nekk ñun denc nga fa sa sa maam wala sa waajur kenn mënut faa dem di ziyaara ji foo dem ndox maa ngi bal liggéey bi tàmbali nañ ko ba feeg weer yu néew nab bi kenn du ci wax ci dëkk bi muy ay milliards yu bare bare bare bu soobee yàlla alors bi jiitu ñëw di ginnaaw suba dinaa ànd ak ñenn dem ñu visité ko xool travaux yi nga xam ne tàmbali nañ ko ngir wan ko waa dëkk bi. parce que président li fiy def kenn xamul nu mu toll loolu rek mooy li ci mujj. li ci des ko wax a ko waxati ko waxati war a seet ñu seet la. ku ñu war a waxal ñu wax ak yow dem ci kilifa diine yi dem ci imam yi dem ci seen daara yi dem ci association yi dem ci regroupement socio professionnel yi wax ak ñëpp leeral leen bàyyi bàyyi caravane yi. ak ndaje yu xumb yi ak kafe yi def porte dem ci nit ñi aw ci seen urmbal yi toog ci seen lal yi wax ak ñoom fii képp koo toog ci biir képp koo dugg dërëm toog ci ab lalam wax ak moom boo génnee parce que ay nit kersa lañ ay nit ñu baax lañ kenn du la ci war waaye nag bu la dee seen nii rek loolu dafay des kon il ñu changer démarche kon ñu xam ne à partir d'aujourd'hui pré-campagne bi commencé na man tous les après midi incha allah dinaa ñëw fi toog képp ku ma soxla naa la jox fi rendez-vous nga fekk ma.